marché HLM bu Ndakaaru ci jamono ji nga xam ne tabaski bi jub si na bërëb bi fees dell ci jaaykatu dal yi nag xëccoo client lañ fa nemmeeku ku nekk di wone sa ay modèlu dal yu wute leen daal di exposé bon am nañu ay marque Sara am nañu ay talon ñambi am nañu ay carbet marque yu aju daal yu ànd ak jamono ka yu tegu si temps yi xew léegi yi xale yi xewal. am am nañu ay escarpin am nañu ay talon talon ñambe am nañu ay talon carré am nañu ay façon yu bari waaw am nañu ay invisible. ca ga njaayum pochette gi itam moo ngi lëmbee. am nañu aussi ay sakos sakos xale yu 3000 am na am na aussi pour xale yi nga xale yu ndaw yi 1000 ak fi réew mi toll jafe-jafe la nemmeeku si mbirum koom bi loolu waxal jaaykat yi di ñaxtu ñàkkub client. ren moom xaw xaw naa doy waar trop nag daal yi bëri na marchandise yi bëri na mais dafa mel ni daal dëkk bi dafa xaw a dëgër daal. daal moom daana fekk moom da ngay am client yoo xam ne dañuy jóge ba ay Kayar ay Casamance ngay gis ñu jënd en jaay bi neex mais ba léegi gisaguñ leen quoi. mais doxul de vraiment dëgg amul xaalis a client yi génn ñu xam dañoo xaalis moom doxul nag dafa tegu si modèle yi. ak marque accessoire yi. ñenn ñi sax dañoo daal di yokku. waaw bu dee dàll yi moom ñu ngi jaay ay dàll dàll sa sacoche si ñu ngi koy jaay tamit la même chose. prix ça dépend am na jar 10 000 am na jar 5 000 am na jar ba 4 000 non maanaam bagage moom chaque année na moom ça dépend ci gars yi rek bagage moom dafa seer waaw bagage moom dafa seer trop waaw seer dàll yi seer la wax tabaski bi dinañ ko maggal si bës yi ñu jëm jamono ji nag jigéen ñi nag ku nekk ñëw wut si bagage ngir rek mën a wone sa taax ca bés bi.